منتهى خير برايا محمد سلامك خلد يا إلهي بهمتي maza kitaabuka lii kanzun wa jaawun wa riwatun wa man yurdi bil qur'aani mawlaaka yahtadi salaamu allazi ci sunu fàttaliku. Euh, màggal ak genn doomu Sëñ Tuubaa rek ñu ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi wéral ko. mi ngi soog a am. ki ko doon li jagleel ko ren reportage bi. Moussa xam nu mën nga nu wax ci moom lu baree bare. waaye nga tënkal nu ci ay kom yi nga xam ni jamono ji itteewoon na ko. lislaam it itteewoon na fitam wa ak jàmbaaram ga. Cheikh Mamadou Moussa. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. jili comme ni waxoon bërki démb hommage bi sëra xadiisu kulluha ibaratun wa waay am lépp histoire la jàngale la kéemaanu sunu borom la naam doom aadama bu ko yàlla xéewalee mu doon doomi Sëriñ Tuba laaxar wa dootu mën a jënd ju baax dootu mën a doon lu jomb ci moom Cheikh Mouhamadou doomi Sëriñ Tuba la waaye moom li jëkk di kéem ci moom ba mu gane adduna la indaale aw turam muy Muhammad sëriñ ko doon jàng alquran moo ko ràññee doole ci al ndax Muhammad moom day am aw dàkkan waaye turam woowu la indaale adduna melow turam woowu la indaale adduna yàlla sun boroom tànn ko ci askan yu sell xam ni yi ci ak diine ak ngor xam nga ni néeg bi mu bokk muy néegub seey ba noppitam ndayam ju tedd ja dëkk ko mu yàgg ci xam-xam ci diine ak sell ak bañ loolu it la mas a feeñaale moom la màggaale teel a wattu alxuraan teel a fonk xam-xam a jaxasoo ak nit ñi teel dox itam xam na ni dox sunu borom daf ci jàngale awalam yasiru borom wax na ko ba tàyyi ndax doom aadama dana xame ci dox lu mun munta xam ndax même aj gi sax lu waay jàng jàng lu waay bari xam-xam feeg moo màkk doo mën a aj ndax ku ne xam na ne aj mu maarasa la moo tax dox Cheikh Mouhamadou Mouta teel na koo def yàlla it dimbali ko ba li gënoon a doon yittee Serigne Touba muy dundal xam-xam loolu mu teel cee teg tànkam ba vers les années 1957 la créé sa première école ca Ndaam dundam jëpp mu sànq ci xam-xam ak jaxasoo nit ñi ak dem ci nit ñi ba Cheikh Mouhamadou Moutada moo xëttale réew mi Serigne Touba li yàlla sunu borom wax ni wa anna lillahi yarsuha ibadiya salihuna nga xam ne islam xamul la délimitation des frontières islam xamul fii la dëkk sangam yam xamul loolu sëriñ Touba ko wane moom mi ni ya ahla barri yaa ahla bahri hujjuwil bahri baari saqaa yi waaye loolu sëñ Modou Moustapha Mbacké moo ko wane dëgg dëgg dëgg dëgg ci jëf ko moom mi nga xam ni citoyen d'honneur la ci bépp réew ci bépp dëkk bu ñu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sëñ Modou Moustapha Mbacké ku rafet jikko la ndax rafet jikkoo ko mën a may mu mën a jaxasoo ñëpp askanu maaram yëpp njabootug sëñ Tuubaa gépp kenn ku ci nekk sëñ Mourtala may na la ci boppam lu doy waar mboolem ñi nga xam ni ñoom la bokkal Serigne Touba seen njaboot gi ñu bàyyi wettil na leen fekki na leen repêché na leen mooy ki nga xam ni doom yeeg sët yeeg ñëpp ma jox na leen boppam. mooy ki nga xam ni moom la ñu xam ni jàppe na boppam ni ki doomi sëriñ tubaa yëpp ni doomi Serigne Touba ndekete patrimoine mondial la. doomi Serigne Touba du koo xam ni kii day des di askan wi moom juree doomi yàlla la. képp ku yàgg yitteel yàgg ñëpp a ci yem loolu doomi Sëriñ Tuubaa yi lañu koy xam amu ci kenn koo xam kii nga sa bopp defoo ko muy alali yàlla di alali lislaam comme ni Sëriñ Tuubaa jële woon boppam def ko muy alali yàlla ak alali lislaam moo tax Cheikh Mouhamadul Moutada de lëkkal na Sénégal gépp boo dee Sénégal gii mu ci say woom école yi ci daaru am gi doon jàng xam ci la ko jëkk a tàmbalee ba bawol gii daj Saalum daj Siin daj Njaambur daj Kajoor daj dëkk boo fi dem da nga fekk école bu Cheikh Mouhamadou Mourtada ba ci réew yi ñu digaloon réew mi nu gën a jigée muy Banjul mu am fa ay école yu bari réew mu nekk mu désenclavé leen mbooleem réew yi gënoon a naqare dem ci adduna mu wut fa ay kaar yu leen di jëlee ci seen dëkk ya di leen yóbbu ci teeru yi di leen delloo ba fu waay mën a nekk ci àdduna ci njëkk yomb nga mën a dem mën a dikk ñoom ñëpp sëñ Mourtada la ñuy wettilikoo réew yi ñu digaloon muy réew yu Europa yi tàmbalee ci Espagne gii nu gën a jige ba àdduna daj fu nekk teg na fa yëkkati fa kalimatu laa ilaha illa allah sëriñ Murtada moo fayul sëriñ Tuba lakk xitaabi laka matabi bi shukrin wada saan waati bi Murtada réew colonisateur ma sa taxaw lakkum réew doomi sëriñ tubaa ji dellu na fa ginnaaw bu colonisateur yi jeexee takk mu taxaw fa yëkkati fa raayow islam ñu yëkkati fa alquran mu gane leen waaye li ma gën a yéem ci sëriñ Murtada sëñ jili mooy ñàkk gi mu ñàkk complexe ku ñàkk complexe la ci manifester fu mu gën a lëndëmee fu l'islam gën a wéete foofee la gën a mën a wane dégg nga non violence islam joomi l'islam doon gi mu doon mag dégg nga terewul muy dukkat ci gaar yi ci aéroport yi dégg nga ci train yi dégg nga ànd ak xale yi nga xam ne ñu tuuti lañu xam nga ni doomi sëñ Mutula xam nga ñu àqam de bañ na ko ba néew na ànd ak ku sax bi jaaw boo sëriñ di magam ni ko tàmbalee Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Seex Saaliwu Mbàkke mii mu fi mujj a nekkal am ci kenn ku ko mas a joxoñ ab tool ni ko bàyyal ma ko wala goral ma ko kenn ku nekk ci ñi mbokkal sëñ Tuubaa ñëpp a doon sàkku mbigam di sàkku ngërëmam loolu moo tax mu xam ne ku ko mën a jox àqam newul ci jaam ñi moo tax day seet rek ndaw ñu sawar ñi ndaw ñu sawar rek lay àndal ndax xam na ni moom li mu li mu daj bu doon ànd ak mag ba tey kon ñàkk na magam yëpp mag yëpp waaye xam na ni li mu ànd ak xaleel ndax ñoom doomu sëriñ Tuubaa yi du ñu nit ndax sëñ Tuubaa noonu na sama doom yi bu ñu déew nit yi def naa ci ñoom lu nekkul ci nit yàlla ko yàlla fayal dégg nga nii mu def adduna bépp nga xam ni am na jullit yoo xam ni ci moom lañ njëkk a tege seen loxo ci loxo doomu Serigne Touba moo doonoon ambulance bu Serigne Touba bi. foo xam ni fii ku dem ba jot seetoo mooy jot si fi yow ku dem ba dikkatoo mooy ñëw fi yow tubaab yi itam ci moom la xam ne ndekete islam mooy lii mooy jàmm mooy bëggante mooy ëmb aw yiw mooy tayyeel ci lu bon ngoo liggéey réewi tubaab yi li ñuy bon bon bon xam nañu ni murit yi ay jullit dëgg lañu ndax nangu nañoo liggéey te am nañu taalu ay te duñu fayu duñu tooñ te ñu bëgg seen kilifa lañu ñu bëgg seenum réew lañu te xam nañ ne murit du lang li wiir tubaab yi ci nun mooy xam nañ ne loolu nag li tax murit du lang fenn mooy danoo am sëriñ tubaa te sëriñ tubaa rek ku dul sëriñ yaakaarul sëñ tubaa ku ne boo génnee da nga gis loo mën a fàttee sam réew ba mu des murit nun duñu fàtte sëñ tubaa duñu lang fenn ndax sëñ tubaa mi nu am te ku melul ku dul nun rek amoo nu am ndax loo mën a am ci àll bi te amoo sëriñ tubaa xam nga ne li nga am a ngi fii loolu rek moo gën a neex tubaab ci nun xam na ne murit yi moom duñu lang mukk yàlla noonu ko yàlla fayal ci barke xaadim rasul te yàlla yàggal fi Serigne Saliou Mbacké mii dégg nga te yàlla sunu borom dolli ko kattan ba li nga xam ni moom la magam yeeg rakkam yëpp bàyyi ci ay loxoom muy risaalatu bu rafet boobu yàlla na ko yeggale ci barke xaadim rasul te ànd koog moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu